waaw man euh, man franchement bi ñu tiré affaire yi ba pare euh, dama amoon tuuti soulagement quoi. ah bon tuuti soulagement oui. parce que c'est une poule où qui tout de suite dans la compétition c'est-à-dire poule la poule la ñu am boo xam ne euh, benn classique mooy Sénégal Cameroun ñaari bi donc on n'a pas le temps de de de de de. amuñu temps mu nelaw c'est-à-dire dès l'entame de la compétition da nga fa war a da fa war a nekk et quand tu sors d'une poule comme ça après au niveau mental euh, euh, da ngay nekk à un certain niveau parce que soo génnee ci poule bu méttee nii mhm. mooy ça veut dire que tu auras déjà franchi ay difficultés donc à partir de ce moment pour suite compétition bi da ngay am ay repères par rapport ak li nga jot a mhm. dund dans dans dans dans le groupe donc poule bi boo ko seetee tu commences par un derby Euh, contre euh, la Gambie Géowaat beneen euh, classique contre le Cameroun ensuite teg si teg si Guinée donc day nekk trois matchs difficile donc les joueurs n'ont pas non n'auront pas le temps de de de monter progressivement mooy ça veut dire que dès le début de la compétition dañ fa war nekk et en général genre poule bu mel nii su fekkee ne da nga si génn en toute confiance après match bu munti ñëw après si phase à élimination directe yi dangay ngay am les capacités de pouvoir s'en sortir. parce que mais sama la bëgg man yow en fait yow réaction bi nga am par rapport ak yu bari techniciens yu bari. Mhm. dafa ute quoi parce que yow nee nga am soulagement. alors que même même le principal Aliou Cissé sax ne mat poule boo xamante ne poule bu nar bu jafe-jafe-jafe ci la Sénégal nekk. mais poule bu jafe boobu moo tax ma am soulagement parce que xam nga lan la sénégalais di fàtte football du la nous on est champion d'Afrique 2023. beneen coupe d'Afrique bu bees la. te football euh, li gën a metti mooy confirmer en Afrique dañu seetlu ne euh, depuis Égypte bi mu teglee affaire yi ba léegi. à chaque fois le champion d'Afrique su ñëwee day nekk dans la difficulté. Algérie moo ko dal bi passé. moo nekkoon champion d'Afrique mais bi mu ñëwee premier tour la génn. effectivement donc donc contrainte yooyu ngay am mais poule bi dalay day maintenir euh, nu ma ko waxee sa niveau mental. Mm-hmm. daf koy maintenir à un certain. Euh, à un certain degré donc euh, doo doo am temps wu bàyyeeku. parce que xam nga ne tu commences par un derby la Gambie qui rêve de toi depuis longtemps. tu tu auras la Guinée qui qui qui qui qui est toujours prêt à se battre contre toi mais mais mais mais mais de façon ak adversité bu doy waar. nga am Cameroun mu nekk match boo xam ne aussi c'est un potentiel euh, concurrent à la à la gagne donc amoo amoo temps wu. Mhm. bañ a bañ nekk si com bañ a nekk si compétition bi. donc de en temps si nekk te soo si génnee si loolu mooy après tout suite après da am ressources yi. Mhm. pour mun a attaquer après les les les prochaines étapes. moo tax man pour man mu ne soulagement parce que euh, manque du d'humilité du ñu mun a dal. Mhm. parce que te te en général euh, champion bi bu bu excès. comme Algérie li ko dal bi passé manqué humilité ñëwee ak bu mu champion d'Afrique am après éliminé au premier tour day nekk difficulté mais là on n'a pas le temps de de de de euh, suñu humilité dañ koy dañ koy garder suñu concentration dañ koy dañ koy garde moo tax ma ne poule bi euh, quelque part c'est pour nous c'est c'est une chance